bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala aqsaamu shafaa lii di rambu dafa am ay xaaj dafa am ay xaaj bi ci jiitu mooy rambu ba lislaam nangu ëllëg yowmal qiyaam ni boobu dafay am boobu rambu nag kenn waru koo ñaan ku dul yàlla kenn waru koo ñaan ku dul yàlla ram boobu dafa may condition bi si jiitu mooy euh, yàlla mooy dafay joxe permission kiir rambu daal di am bu yàlla joxewul permission kenn du rambu kenn kenn du rambu kenn ñaare bi tamit mooy yàlla dafa war a gërëm kontaan ci kiy rambu waaye tamit ñette bi yàlla tamit dafa war a kontaan ci ki ñuy rambu kon permission ngir rambu daal di am dafa war gërëm kii rëmb gërëm ñi ñi rëmb bii rëmb bu dagan nag bu dagan bi moom it dafay xaajaliku moom it ñaari xaaj am na rëmb buy am yowmal qiyaam boo xamante ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa moom dong moo koy def kenn du ci bokk ak moom bi ci jiitu mooy ashafaatul uzma mooy nit ñi bu leen borom bi tabaaraka wa taala dajalee ci taxawaay bu màgg boobule ba ñu nekk ci tiis ak njàkkare ñu wàccee naaj bi seen kaw ñu soxla ku leen rambu fa yàlla boobu kenn ko def ko dul yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa bi rambu bi mu rambu bàyyi taxam abu taalib ngir ñu daal di koy oyofalal mugale biir safara loolu tamit yonent bi moom dong la yàlla may mu rambu ka nga xamante ne du jullit waaye rambu du génnee ko safara de déedéet waaye ngir oyofal ko safara boobu mu nekk du fa génn nag ñetteel bi mooy rambu bi yonte bi di rambu sallallahu alayhi ngir ñu daldi ubbi buntu aljana yi ngir kat nit ñi bu njéggee siraat ba ñëw ci buntu aljana dañuy daldi fekk buntu yi daldi tëju ñu soxla nag jamono boobu ka rambu ka ñaanal yàlla ngir buntu yi daldi ubbeeku beneen façon rambu bi nag ah yonte bi da koy def ñëpp tamit dañ koy def ñeneen tamit dañ koy def ñan ñoo koy def yonante yi dañ koy def malaaka yi dañ koy def ah, nit ñi faatu ci tawxiid ci kenn yàlla dañ koy def waaye tamit xale yi nga xamante ne faatu nañ lu njëkk ñu nekk majeur nekk ay tuut tànk ñoom dañ koy def ramb boobu dafay amee ci fi rafi darajaatil muwahhidin ci ñenn ñi ramb ñeneen ñi ngir seen daraja fa aljana gën a kawe ah, beneen xeetu ramb bi mooy rambu ka nga xamante ne moom dafa yelloo dugg biir safara ñu ramb ko ba du dugg ñetteel bi mooy rambu nag ka nga xamante ne dugg na biir safara ñu daal di koy rambu ba daal di koy génne